fàccaam génn lu mu yàqul euh, Karim Wade amut ñan ñoo fi yàq Karim Wade xamee ak kii di euh, président Abdoulaye Wade ay Farba Farba Senghor la ay euh, Pape am Mboup ñeneen ak ñeneen des têtes yoo xam ne nii li leen président Abdoulaye Wade defaloon réyoon na rëy boo xam ne nii ñii ay doom ñii ay li réyoon na rëy boo xam ne nii moo leen defar mën naa ne mën moo leen defar nii ci ci ci àdduna daanaka ñooñu ñuy jóg tey jii di ko xalab di xalab doomam donc da ngay xam ne politique mën na lu ne te président Macky Sall na suuraale loolu. te xam ne moom président Macky Sall ak Karim Wade ba ci moom. ndax président Macky Sall sa mën nga ne. daa euh, <laughs> président Abdoulaye Wade tooñoon na ko. Mhm. tooñoon na ko ba Sénégal yi ñu bari jàppale ko. tooñoon na ko ba ñun ñi jàpp ne kii da ko tooñ. mais nag euh, moom li mu def nii xëy na. poññar bi lay doon parce que yërmande taxoon na aussi ñu teg ko ci bopp réew mi moom tamit loolu noonu mu dundoon da ko war a jël mu servir ko leçon mu war a sóoraale yenn yi nga xam ne mi ngi koy dal te na sóoraale bu baax ñi nekk ñi nekk ci wetam te Mame Mbaye Niang gis nga sorteem bi semaine passée te Mame Mbaye Niang du waxul mhm. ah, lu tax nga naar bi naar bu ndaw bi lu mu wax ci dëkk maa la ko wax ci xelwa la ko ah, jëlee lu tax nga wax lool Mame Mbaye su fekkonte ne li mu wax mm. amul dara lu ko ci mën a fekk mhm. kon ba tey jii dégg nga ñu woo ko mhm. wala am na leneen loo candidat APR mhm. nga jóg yaa ngi ci biir gouvernement bi nekk nekk ci biir ci biir gouvernement bi nga mën a génn tàll say loxo ne ànduma moom te ñi ko fi waxoon ñëpp bokkaatuñ ci gouvernement bi merci beaucoup euh, comment ça se dama ni nañu xoolaat bu baax mbir yi yow jàpp ne moom naxee mbaay naxee mbaay am na ci Amadou Ba daal mooy ki nara a dee ci mbir mi loolu nga gis moo nar a ci mbir mi dina ci wét lool parcelle man dama sonn <laughs> mais am na lenn aussi tamit lu ma lu ma gis euh, coro je sais mhm. ndax bàyyi ngeen si xel mooy mhm. dañ gis ne euh, ba ñuy def retrait fiche de parrainage bi y plus de deux cent ay euh, parti et tout ça maintenant mhm. quand il s'agit de yóbbu wala def dépôt de candidature on dit ay naka nga gisee lool mais jàngat ñeneen ña jàngat bi euh, euh, euh, maa xadi hmm. defoon nañu ko depuis le début te it liir yi ci Sénégal sax boo leen yeewee hmm. ne leen plus de quatre cent ah, personnes yi nga xam ne hmm. demoon nañu jële ay fiches de parrainage wala lu ko bëgg ëpp donc da ngay xam ne du ñëpp ñoom ñoo fas yéenee dem fi nga xam ne ni moom moo di ca ca ca élection parce que am na ci ñoo xam ne dañu meebu parce que gouvernement bu ñu bokk am na ci ñu bari ñoo xam ne dañuy meebuwaale gouvernement bu ñëw dañuy fexe nuñ ñu ci bokkee pour mën a mm. doxal seeni yëf ay homme d'affaires lañu comprendre nga mm-hmm. mais euh, am na ci des gens yoo xam ne nii mm. dama ni la nguuru Sénégal jii boo leen ci jeexee fekk leen fa mm. yaa ngi dégg mais tamit loolu dafay justifier li tax parti yu bari yooyu yëpp lii man dama naan dafay juste dafa euh, nguur gi dañ cee bëgg a justifier lu fait que ñu teg parrainage nguuru Sénégal parti yu bari yi ñu wax ni yëpp dem nañu te ñu xam ne du ñëpp a mën a am parrainage mm-hmm. cinquante mille euh, euh, euh, parrain yi nga xam ne ñu ngi koy laaj xam nga du ñëpp ko mën a am mm-hmm. mais ñoom gëdd lay doon ci ñoom ñoom waa nguur gi gi nga xam ne ñoom ñoo teg parrainage parrainage ju koy laam-laamee machine bu baax am bu baaxul ñoom tey ji dañuy bëgg a justifier wu ci li nga xam ne moom mooy tey li am mm-hmm. maanaam quatre cent Euh, euh, personnes la ñu woon tey yaa ngi gis moins de quarante personnes ñoom ñoo dem déposer seeni ay caution fële ca ca conseil constitutionnel ñoom ñoo dem déposer seen i ay ay ay ay euh, mhm. kii de candidature mhm. donc da ngay xam ne kon <coughs> daraa ngi ci daal suufa ngi si suufa ngi mhm. si paasa naka it nga jàngatee comme lu si mel ni coalition benn Bokk Yaakaar nga gis ne ah, jotoon nañ fi wax ne am nañ lu tollook ay quatre mille parrain ñoom mais nag 4 millions 4 millions de parrain de parrainage waaw waaw euh, nit ñi doon xaar ne yooyu yooyu loolu loolu la ñu waxoon ñu doon xaar ne xëy na loolu loolu loolu la yóbbu man de for ñu gis naa parrainage des élus la ñu yóbbu amul benn paradoxe for daal ay ay kilifa yu ma dégg ñuy wax naan mm-hmm. Amadou Ba bañ ko waxee waxi 3 millions de parrain dafa ne moo moo ñu moom nit ñee ko yëgandoo ci média ah mm-hmm. waaw kon loolu moom liñ naan ñu ko doon wax ak ko bëggoon xam naa rek te moom xam nga moo tax ñuy wax la presse sénégalaise ni ñuy def attention ci xam nga non c'est dommage ñan ñoo ko wax ba pare ñan ñoo ko wax mhm. mhm. c'est dommage c'est parce que c'est comme quand ngay toog di gis ci journaux yi à la une diw indi na nangam ci parrainage pour Amadou Ba diw indi na nangam ci parrainage pour APR diw après nga naan mii non diw indi na nangam ci parrainage du information bay doon une surtout du info Mm-hmm. c'est pas de l'info c'est-à-dire si ñu ngi ci niveau accessoire ak non mais c'est incroyable. am na yoo xam ne ay publi reportage reportage. problème bi nag par exemple benn journal dem sur le terrain dem ñu woo ko mu couvrir loolu. kooku ne remettre na parrainage temps. jox ko kooku benn du ci publi reportage. les gens l'écoutent les gens l'écoutent comme info non waxuma ñi ci une yi de man. Non, ça, moi je parle de la presse écrite en ah, général. Ah, les unes, parle de une. Mm -hmm. Quand je parle de une, je parle pas de la télé. au-delà bu dee télévision euh, comme Walfadjri li mu nekk di jàll jamono bi sargal Macky Sall da ngay fay oui ça c'est payant c'est connu ca journal ba nag journal bi jël titre à la une jox propose ñu ah, information foofu la maa waxe mhm. c'est-à-dire te loolu day jaxase dëkk mhm. xam nga tey Amadou Ba taxaw naan ko Sénégal am nga fi 3 millions wala 4 millions moom ci boppam sax moom bu fa mu toog il va rigoler. Mhm. il va rigoler. ca nan ko xamee il va rigoler il va dire woo oh, mais vous en vous trop fait. Mhm. wala bu leen ko waxul itam dana ko xalaat. wallaay il faut être sérieux. Mhm. en fait foofu ngay sax loolu boo ko déggee wuy ma. xamal ni régime boobu du dem. quand ça rentre dans la tricherie. régime boobu du bi réussir mooy bi tegu ci yoonu dëgg. parrainage élu ñoom bu ñu ca demee mais il faut se poser la question la dernière fois je disais mais attention c'est vrai que APR mun nañu parrainer Amadou Ba c'est mhm. facile avec le député avec tout ce mais attention mhm. bu ñu demoon ci parrainage normal mhm. est-ce que est-ce que conseil constitutionnel wuy ma dana ko valider question la parce que xam nga tax mbirëb Amadou Ba dafa compliqué xeex bi coro wax na la ko dana ca wéet ak dana ca kii xeex bi ne ci mbiram moo metti il est entre la marteau et l'enclume maanaam si opposition bi wala boog population yi ànduñoo ko moom ci ëpp en tout cas ci li feeñ nguur gi c'est extrêmement grave mm-hmm. ton propre ministre bi dugg ci sa gouvernement sauf que dañuy dégg ci ci ci dañuy dégg am na fu ñu koy dégg. ñu mm-hmm. naan ñu naan ñu naan euh, Amadou Ba du moom moo boole Mame Mbaye Niang ci gouvernement bi. Mm-hmm. mais c'est le président Sall. ça veut mm-hmm. dire beaucoup de choses. Mm. et lay waxee ni déjà dès le départ bu dee loolu am na. c'est faussé. parce que mënoo dénk nit ba pare di ko wayadil noonu. su fekkee ni kii dafa war a liggéey ak man te ñu nga dénk ma ñaaree am. soit c'est lui ou c'est moi. foofu la division nekk. moo tax léeg-léeg ngay gis kilifa nekk ci bopp bi jaxasi ñi mu àndal. loolu division la. APR nag jamono bi moom pëcc xu xoolal dañuy sàggu nii de li ngi leen di gis nii. barewunu safewunu soof nañu soxor nañu léegi nag ñoom ñoon jéem a néewal ñëpp ba néew dañ doon jéem a néewal opposants yi néewal population yi néewal dëkk bi imposé dictature ba faf néew nag mhm. waaw da danoo mujj néew nag ñoom tuuti danoo affaire ba pare affaire seen. dëgg caf ka wuy ma xulil awee eh, maa la wax aw. wuy ma mm-hmm. mbirab caf ka xam nga nit sax léeg-léeg mu dese tuuti. ñu naan waa ji des na nga la judee. Mm-hmm. affaire <laughs> danoo desewut dara. sàlli nga ba a dañoo sàlli bu doon sàlli mu tànn danoo safut dara xam nga sa kii sàlli mooy. kii saf safu waaw sàll sàlli. waaw danoo safut dara safut <laughs> dara. sàlleen bi loolu yàlla dogal xam nga <laughs> c'est des gens qu'on aime bien. mais dans le fond dans le fond. barka bu fi nekkoon ne la ils xoolal mhm. ils ont détruit énormément de choses dans ce pays ah après li ñu yàq ci Sénégal beneen président bi ñëw dina sonn waaye yàlla ko yàlla suturaal mhm. mu liggéey ko jamono bii moom mbiru mbiru politique ak ñii APR ak ñii waaw yow yéen fan la ciy toll euh, avocat wu nguur gi waxoon dañuy def recours def nañ ko wala jotaguñ ko def. recours lan agent judiciaire. waaw recours ko de amagul de. tey lañ lañu lañu épuisé. tey la am 10 jours ndax mujj na tey lañu épuisé. am na si ay. Eh, info mu balancé du ko def mais tey lañu épuisé seen 10 ko def. Mhm. ca bopp la ca kaw la. defal wala bul def ca kaw la. maa la wax lii. Mhm. mais bu ñu fàttee aussi defal wala def ñoom ñoo jógoon di ko wax bu ñu fàtte nit ñi ñu ngi leen di bàyyi xel. waaw je veux dire je veux dire maanaam mhm. l'agent judiciaire dañ kaa sant mu def. si si looloo foofu lañ toll. waaye mhm. nañ gërëm suñu borom rek yàlla na yàlla rafetal lépp. ndax lañ waxoon def nañ koom déet kay mooy mooy wax ji. xëy na xëy na bu dee mu Moussa Fagnès am na si ay info mu wax ñu ndax. amagul moom kay bu soxla bu amoon mu yëg ko te te defe naa buñ ko deful ba tey day jàll de yéen euh, waaw ni ki tey sax it tamit la hmm. conseil constitutionnel dakkandil euh, ni muy recevoir dossier. na lépp rafet man damay fekk si paasan toujours rek ci lu mu wax. ci euh, parrainage des élus bu hmm. Amadou Ba. maa xam ne Jéeri Fall lu jar a taxaw la. Hmm. parce que buñ ne président Macky Sall jamono yee weesu dafa génn taxaw. def euh, li nga xam ne moom mooy euh, euh, mbir mu rëy ne diw laa tànn. Mm. te mu nekkoon ni ñu ko doon xaaree ni ko doon xaaree ci can ci prise troisième candidature am. Mm-hmm. mu génn ne diw laa tànn ci APR yaakaar naa loolu lu rëy la mu def fi 12 mm-hmm. ans yoo xam ne xar kanamam ñëpp xam nañ ko. Mm-hmm. donc il faut ñu ciy taxaw lan moo tax Amadou Ba am parrainage des élus. naxante bi nga xam ne ni tey ji moom la def lecture euh, ci biir APR ak na mu demee euh, euh, te it lii dafay wane ne ñoom dañoo def mais gëmuñu li ñu def mm. waaye itam mm, mm, ci ñàkk gëm li ñu def li wane nañu impopularité wu bu Amadou Ba ci li nga xam ne moom moo di élection yi ñu dëkkmal waaye bettul kenn parce que bi Aly Ngouille Ndiaye jógee euh, daal di ne gëmul Amadou Ba yaakaar naa ne du woon lu bett kenn parce que xamoon nañu ne bu président Macky Sall tànnee Amadou Ba dina am ñu bari bari bari ñoo xam ne bi mu ko tànnee ñu bari mhm. dañ doon wax ne dina am ñu ñu gedd euh, euh, waaye tam ñu gis Mimi Touré ñu gis ko li mu daj ci élection législative yi ñu mujjee dem ci fii ci Sénégal ak li mu daj wër Sénégal li mu dajal Benno Bokk Yaakaar daanaka li ñu am ci li nga xam ne moom moo ci euh, euh, ndam akus néew moom moo leen ko jox ndax gis nañu mu wër euh, Sénégal gi yëpp def li mu def lépp pour am li mu am te am na ñu bari ñooy wax ne jamono jooju mi Touré moom moo tax ñu am li ñu am ci la ko sax Ousmane Sonko doon tëkkoo pour ñoom ñaar ñu daal di dem ci plateau yi ngir waxtaan ci wàllum euh, programme ak yeneen yaakaar naa ne candidat bu potentiel la woon euh, jamono jooju boo xam ne moom la Benno Bokk Yaakaar jiitaloon kooku génn ne gëmul Amadou Ba te it impopularité Amadou Ba moom wax ñu ko Mhm. kon bu ñu nee euh, parrainage des élus yaakaar naa du ñu bett mais nag ñi mu war a bett mooy ñoom ci seen biir. Oh. Euh,